Ahmadiyya yeesal diine ak jamono Ahmadiyya la vision future nga gis ndox ma nam koy waajale fa muy jóge fa muy balle kenn xamu ñun dañuy gas rek gis ndox créé o maam jaara wala ñu naan o bara ñi o faal ñi o njaay ku ci ne ak tur wa koy wutal rek ndox ba fa muy jóge suuf si ba xamoo ca dara dangaa branché say tiwo rek mu ball mu ballee ndox moomu fa muy jaar romb xam ni la muy romb ci façon wi suuf la muy romb ci ay xeer te bu ci nekk rek am na lu muy liggéey ci ndox mi ndox mi bu rombee xeer xeer woowu am na ferñeent mu bàyyi ci ndox mi bu suuf suuf su mu romb suuf soos yi am na ferñeent muy bàyyi ci ndox mi moo tax ñu naan ndox bu teewee rek bu teeyee te naxul rek naanal la ci ne ci ay ferñeent kenn xamul nu mu toll waaye xamatuñu ko nag dañ koy jël yóbbu ko ci barab yi ñi di ci dugal yeneen ñi ne dañoo bëgg ndox mu neex fekk ndox mi ñuy mën a jëriñ mooy ndox mi nga xam ni na ko yàlla tëgge foofa lañ koy jëlee buñ ko jëlee nag bu ñu seggee rek mën a naan loolu la mag ñu daan jëfandikoo moo tax ñu wéroon dañu daan naan ndox ndox mi di dund ci seen yaram ñu ne dañuy naan ndox dem tuuri ndox dem tuuri waat gis nga ya'lamu ma fil barr mu xam li ci jéeri ji yëpp xam nit ñi xam yooyi xam jorgoñ yi xam weñ yi lu ci ne xam na ñaata la benn ba ca njëkk judd ak ba bay mujjee ñëw ba keroog ñuy wàll bëft bi loolu yàlla moo ko jot subhanahu wa taala ñun xamuñu ko xam li ci biir géej gi kooku beneen monde la moo tax alquran bu naan rabbil alamin yàlla mooy borom monde yi alalam ñi koy firee monde lay tekki ci arab bu ci français mooy monde mooy àdduna aalam mooy àdduna bu ne yàlla ma ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy rabbil alamin mooy boroom monde yi boo ne monde yi nag nit mbindeef yëpp a ngi ci biir monde yi ñenn ñi ne mooy boroom mbindeef yi su boobaa monde day bokk ci biir mbindeef yi mbindeef yi ñu ngi ci biir monde yi nga boole mbindeef yi ak monde yi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir yàlla moo tax kee doo toog naan yàlla fii la placé déedéet subhanahu wa taala parce que yàlla monde yi ak nit ñi ak ñépp ñu ngi ci biir yàlla subhanahu yàlla aw leer la boo xam ni bu nee am na jëmm dañ naan jëmm la joo xam ni leer la waaye leer googu nekk boroom leer googu nekk ci barab yépp nag fu ci ne mu nekk fa ak xam-xamam fi xam-xamam la fi toogee ci gàttal nag mu bëgg ñu xamal boppam ci gàttal pour ñu mën a dégg-dégg bu gàtt mun nañu boo ñu ko bëggee daj nañu ko nañu ko làmb ci suñu xol yi ndax xajul fenn fu dul ci xolu jullit subhanahu wa taala kon boo bëggee daj yàlla ci sa xol nga koy daje léegi nag boo bëggee daj yàlla ci sa xol kooka fan ngay jaar mooy dangay ngay julli di di jaamu yàlla di zikru di tudd laa ilaha illa allah laa ilaha di jàng salaatu ala nabi jàng istigfaar bu yàggee léegi nga daj yàlla ci sa xol subhanahu wa taala xam li ci biir géej gi géej gi di beneen monde yi fii ñuy dund monde la am na am na suuf am na yeneen monde yoo xam ni ñu ngi foofa xorondong yi ngay gis ñuy dox ci seen monde bopp la ñu nekk weñ yi ci seen monde bopp la nekk jorgoñ yi ci seen monde bopp lañu ñu nekk moo tax bu ñu nee aalamiina ñu comprendre déggulu alquran dañuy defe ni benn àdduna moo am li ci des ay planète nangam nangam déedéet nit ñi dañoo yor seen monde bopp xar yéeg ba yi yor seen monde bopp moo tax ñu yor seen langage bopp di communiquer ci seen biir noonu la bàyyi ma yeeg njanaaw yeeg dégg ba duggee ci géej gi fekk fa yeneen monde yi léeg-léeg nga gis bu daw ci géej gis mbindeef boo xam ni nit tegu mosu koo teg bët te mënu laa wax ne lii lan la du xam jaan la du xam gaynde la du xam kenn du xam lu mu doon nii rek la ko gisee te kooko kenn la ci mbindeefu yàlla yi boo xam ni bu yàlla bëggoon tukkal àdduna bi naan ko xëy rek mu jóg rek daañu massacre ci ay tiers yu gàtt yu tuuti loolu lépp yàlla moo ko fekk wal baxri amul wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha amul lenn luy wadde jóge ci garab moo xam xob la moo xam aw kayit la ak lu mën a doon te yàlla subhana taala xamu ko amul lépp la fekk ba noppi wala fi wala xabatin fi xulumaati l ard wala rabbin wala yabis illa fi kitaab mubin amul benn pepp wala nga ni atum buy naaw di jóge ci kaw di wadd ci suuf wala ngelaw la te yàlla xamul lim ba ñaata la fan la ñu jóge fan lañu jëm ak bu ñu waddee ci suuf ban diir lañ fay def loolu lépp yàlla peg na ko subhanahu wa taala amul lenn luy waw ci suuf te yàlla xamu ko lu jiitu mu di ko bindee lépp ndax mu ngi ko préparé illa fii kitaabin mubin da koo bind ci téeréem bu bu bér ba kooku nag mooy lawxil maxfuuz yàlla mooy créé lawxil maxfuuz subhanahu wa taala def fa lépp loo xamante ni moom la préparé àdduna bi ñun nii kenn ku ci ne li nga war a dund yàlla bind na ko ci lawxil maxfuuz mënuloo fexe ba romb loolu nag moo tax bu ñu la naan nangam day guddal fan bu boo ko defee say at day yokku de déedéet boo saraxee day guddal fan ñoom salaa ci xadis sunna la ne sarax dafay yokk fan dafay guddal fan guddal fan mooy nit koo xam ne waroon naa dund quatre vingt ans quatre vingt cinq waroon ko def ci cinq ans yi ci des waroon ko def ci lal maanaam quatre vingt ans yi la waroon dund cinq yi ci des ci kaw lal la koy def xam nga ko toog ci lal génnatul dematul fenn kooku dee pare daanaka néew buy wax la rek parce que amatul na njariñ bay xool ci société bi maa ray taalib bu amee njaboot yu gàtt xel dañuy toog koy toogaanu di nga xaar mu gaaw a ba ñu noppalu ci moom waaye nag mën nay mën nay nag am njëriñ nag ci côté ruhaniya bu fekkee dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne dajoon nañ yàlla ci seen xol subhanahu wa taala ndax ñooñu dafa am intervention yoo xam ne dañ koy def ci kawnu bi waaye pas ci seen jëmm mais ci seen seen wàllu ruux ndax seen ruux dafay am doole dañuy boole bokk ci ay soldaar yàlla yi nga xam ne dañoon représenté yàlla ci kaw suuf donte ne ñu ngi tëdd ci lal di nelaw dekk dans le coma seen ruux dafay tourné loolu yàlla defoon na ko ay jaamam subhanahu wa taala dafay ñooñu ay missionnaire la yoo xam ni ci kaw suuf la ñuy nekk di def di def seeni intervention waaye gis nga mbooleem ñu mën a doon ñëpp yàlla programme na ko lépp nak ci lawxil mahfuz dund bi fa yam du ko wessu bo saraxé nak yàlla yokk sa wér wala wañi say musiba ci jaare ko ci sarax boba wala sa ubbe ko waare ci jaare ko ci sarax bob yoy yeb man na nek waye bu ko defé lépp nak ci xam-xamam lay amé motax li ñi tuddé lawxil mahfuz jaam bu ci nek turam mu ngi foofu ñu ngi ko note note li mu war a dund note li muy lekk note li muy naan note alal ji muy am note xam-xam ba lay toll hakada lépp mu ngi ci biir xam ngi ci biir xam bi nga xam ni yàlla moo ko créé moo rax tax dañuy wax danaan yàlla amul xam-xam bu dee li ñuy tuddee xam-xam loolu yàlla amu ko ndax yàlla moo créé loolu yàlla moo créé xam-xam subhanahu wa bu naan aalimul xaybi بوكو لك خم خم بيغا خمانتاني نين مهم لن يتو دي خم خم دي دي سبحانه وتعالى بربي كوكو موي سوين بروم ني ديكو چامبر بو باخ مو اندل ني بنان آية چي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون من موم يالله سبحانه وتعالى ndax moom mi nga xam ne mooy ki bind asamaan ci bind asamaan yi ak suuf yi ba noppi wàcce leen ci asamaan ndox ndox mi ñëw bi ndox mi ñëwee taw ci kaw suuf ba mu tawee ci kaw suuf suuf soodu daldi génne ay jardin wala ay ngeer wala ay dugub wala ay dégg nga mboq walla gerte wala lépp loo xam ne lu ñuy soxla la rek foofu la ko yàlla di génne ñun ndox mi duñ ci dara de moo tax dañuy wax ne ki ki waroon gën a gëm yàlla war a gën a gëm yàlla mooy baykat ndax baykat bi moom dafay jël tolloog ay million gas ci suuf si daal di ko fi suul te yarul lenn loo xam ne moo koy garantil ne ndox dina ci wàcc ba mu meññi ba million yooyu mu man caa mu mën koo jaay amaat ci ay million wala junni yooyu mu suuloon ci suuf si dana génn ba bu ko bu génnee mu man cee dundee at walla atam lu topp ci barke ndox moom dara wóoru ko ci loola bu dee am di amaat di amaat nag war na jàngat war na def jàngat lii fu muy jóge kan moo koy indi lan moo tax mu di ko indi du pour kenn pour yow pour yow loola rek bu ko don chambar rek du mos a mooy ci kaw suuf wala du mos a foye kuy moy yalla ci kaw suuf ndax lola day tax lola barke bobu di am ci suuf sosa man nako koo te loolu lépp ci digal yalla lay amé mune mu genné ci suuf ay garab mune kon ndax am na yalla kudul mom yalla subhanahu wa taala dedet mara jom yalla yàlla adam moy gatt xel den di jël aw nag boo demee fu mel ni Inde ay nag lañuy jël di leen jaamu am na ñoo xam ni safara lañuy ñuy jaamu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni moom lañuy jël def leen seeni yàlla waaye ñooñu dañoo gàtt xel jaam boobu nag kooku fakk jëf la loolu lañ loolu kooku lañ naan moom la yaay di tuddee majuus boo ko xam ni gëmul yàlla gëmul yonentu gëmul dara am na fi Sénégal ñoo xam ni ay maanaam gëmuñu dara lu dul yeneen tradition lañu ñu gëm kooku nag majjusi la diinay maj li ñu tuddee majjusi yal ci yàlla musal ñooy gën a metti mbugal ëllëg yawmal qiyaama nee na ndax du moom yàlla subhaanahu wa taala moo def suuf si muy suuf su dal ñaa ah, kañ ba noppi mu defal ko créer ko ay dex dex yi ci lañuy boo demee Dakar jëm ba Tiwaawan jàpp zone yu bari ci dex yi la ñuy naan dexu lag benn dex bu ndaw bu ñu naan lag de bis bu xëyoon bu xëyoon ñiisal ko rek ñëpp wa am problème boo ñëwee fii nab yi lañuy jëfandikoo nab yooyu bu bu ko téewoon rek kenn dootul dund ñun xamuñu fu ndox mi jógee ñu ngi jëfandikoo rek moom yàlla moo def loolu subhanahu wa taala ba noppi mu def suuf si suuf soo xam ne suuf su dal la defar ko ay ay ay reen yu dëgër ba suuf si du xëy rek màbb dégg nga ba ñun ñu te pëtax ci daal di faatu ñun ñëpp ndax yàlla daf ñu defal gaaraam ñu xet yonent sallallahu alayhi wa mooy mbugal yi mu doon wàccee ci jamono yi yeneen yonant yi ñun dañ ciy am garanti yonent bi sallallahu alayhi moo ko ñaanoon yàlla waaye bu dul woon loolu ak fii ñu toll ci jamono jii kon yàlla alag nañu bu yàgg ndax mbooleem ñi daganaloon ngóor jigéen cay jamono validé woon ko mu doon loo xamante ni lu légal la ñooñu yàlla def leen alagoon waaye fi ne boo dund ci àdduna bi réew yu bari moom la ñuy dund def ko loo xamante ni lu naturel la ñuy mën di ko dund ak accepte ko ci seen réew loolu mooy mooy confirmer ne ñaan yonent bi sallallahu yàlla da ko nangu ci xeetam yamul ci jullit yi rek waaye dafa yóbbaale ñépp nag yan yàlla boole jimbali yan yàlla gën a dëgëral suñu liimaan yal yalla tapé namal namal suñu xol ci l'islam ak bëgg yalla ak di jaamu yalla ngir bëgg yalla subhaanahu wa jullit bi fay war di jaamu yalla ngir bëgg yalla wala muy bëgg-bëggul yalla day dem ba day bëgg yalla jullit war na yegg fenn ci dimension bo xamni waratul toog degg ñi wax waxi safara mo ne mu dem julli ci war na ko romb dafa ko julit bu ñak jom la dafa mel ni gone gi bàyyam bàyyi ci biir kër gi rek ne ko bul def lii moom daal sa maanaam yar la xam li mu xam mooy yar bu gisul yar rek def leneen liñ koy tere kooku dañ naan gone gu ñàkk jom la du dëgg jullit bi it noonu la mel dafa war a bëggal boppam yàlla buy bëgg-bëggul yàlla day dem ba day bëgg yàlla bu bëggee yàlla day dem ba yàlla da koy bëggal boppam bu ko yàlla bëggalee boppam nag jëmmam ji yëpp dafay barkeel te lu mu ñaan yàlla yàlla nam ko bu ko defee ñuy ñaan ñuy góorgóorlu bu baax mbokk yi te am seetlu suñu réew mi am na yoo xam ni bu saxee ci réew mën naa indi musiba yu garaaw te bokk na ci message bu ñuy jàllale mooy yi ñuy jàllale ci télé yi série yi nga xam ne ñu ngi koy dawal ci télé yi tàmbalee ko ci chaîne bu mag bi nga xam ni fondamentaux wu l'islam lay màbbal gis ngeen réew fa foo dem ci àdduna lépp loo gis day am njiit day am njiit day am day am wegeel boo demee ñuy jaamu ay xërëm sax dafa am ñu ñuy dafa am ñoo xam ne dañ leen wekk gis ngeen bu ñu demee ba li nga xamante ni mooy fondamental wu nit ñi dem ba mu doon lu banaal ci ñun ba réew mi xamatuñu lan mooy principe bu l'islam xamatuñu duñu xam luy diine duñu xam li nga xamanteni moy ñi nga xamni dañoo représenter l'islam ci kaw suuf te di doxal mission bobu ban haqq lañu am tambalé ko ci ñi nga xamanteni dañoo yilif ay mbolo yu bari ay ay daara alquran di jàngale di produire l'islam di di ko tassaré wala ñi nga xamanteni ñoy def ay da'wa di dugg fune ci gox yi jaay seen ruux yi yàlla jaay seen jëm yi seen xol yi lépp ngir yàlla subhanahu wa taala di liggéeyal yàlla ci kaw suuf ak ñeneen ñi mel ni ñooñu ba ñi nga xam ne ñooy jiite nit ñi ci biir jàkk yeeg jumaa yi bu ñu demee ba bëgg a ridiculiser maanaam jëmm yooyu mooy réew mi fa muy jëm mooy day tas leer dootu fi am te saay-saay yi loolu rek lañuy bëgg ci loolu la ñuy dox moo tax nañuy góorgóorlu di seet bu baax xale yi li ñuy seetaan ci télé télé yi amatul njariñ ak internet yi ak téléphone yi ñuy jox xale yi li ñuy seetaan gis nga ba ci wàllu borom ñaari tur yi gis nga ba ci dessin animaux yi dañ ciy jàllale ay message yu bari boo duggee Dakar poste boo taxaw di nga fekk série yi ñu ngi ko def ci ay ay tableau di publicité film yu ñuy joué mënul fay publicité yooyu mënta nekk c'est impossible fi nga xam ne mooy point yi yi ñuy taxaw yi ñuy jëlee oto biis yi foofa tam da gis tableau yi panneau pablo panneau publicitaire bi pour série yi ñuy joué publicité yooyu li koy fay xaalis bu bari la lii jóge ci film bi mënu koo fay am na le ñeneen ñu nekk ci gannaaw lu ne nag la leen jara liñ naan lalle lu ñu lal ñu lalle bu ñu góorgóorluwul nag dinañu dem ba suñu réew mi moog réew yi xam ci biti ñoo yam de te bu boobaa maar day taali stabilité bi ñuy wax fii ak dal gi ak mbax ñi nga xamni ñu ngi koy dund ci Sénégal day dem ba ray jeex loolu nak suñu yitté la wara doon ñun ñëpp ñu diko ko dénoncer diko xex luñu man té di góorgóorlu di veiller ci ci njabot gi di len conscientiser ñi xam li ñu gis li ak lan lañu paré yar len ci yarul lislaam jangal len alquran fexé ñu jindi xam kan moy borom subhanahu wa taala loolu suñu devoir ñun ñëpp mo xam imam yi la mo xam yi la mo xam serigne sila mo xam ñi nga xamanteni ñu ngi population yi la te di ay jullit dara dafa wara doon seen yitté réew bu baxé ñu tabax ko bu mu bax mu am xaaliss nit ñe ñepp ami liggéey té liman bu deugër amu fa mo zéro ñoy am bu fa safara nga jëm am am aduna bu doyé di bii nag dam dem safara lool dara jaru dundu ci ay sàkket té jaamu yalla jibo yalla mo gën dundu ci ay ay ay ay ay ay ay bindin ba noppi jiboo yàlla boo dee da ngay sabara ñaari fan ngay dund ñett ñeent juróom juróom-ñaari at fukki at téeméer li yàlla bind li ngay dund xamloo ci dara kon loolu mooy li nga xam ne mooy li mooy cëslaayu réew mi réew mi loolu mooy cëslaay bi mooy mooy barke bi moo ko taaral moo tax ñu bari wek ko loolu nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax te yàlla nañ ci yàlla boole dimbali incha allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمدية يا Yes الجمل أحمدية لا فيزيون future.